yéen jigéen ñi ni nañ leen yónni te di leen sargal yéen ni nañ leen yónni te di leen sargal yéen jigéen ñi ni di leen sargal yéen jigéen ñi ni nañ leen di leen sargal yéen jigéen ñi ni nañ leen yónni te di leen di leen sargal ni nañ leen yónni te di leen yéen jigéen ñi dinañ leen yónni te di leen sargal yéen jigéen ñi dinañ leen yónni te di leen sargal yéen jigéen ñi dinañ leen yónni te di leen sargal yéen jigéen ñi dinañ leen yónni te di leen sargal yéen jigéen ñi dinañ leen yónni te di leen sargal yéen jigéen ñi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

daanaka damay wax rek le 8 mars yaakaar naa ni at mi yëpp la ba tax ne noonee lay taxaw rek di nuyu ki nga xamante ne mooy borom kër gi ma di ko nuyu le grand PDG Mbagnick Diop dama koy ziyaara bu baax a baax macha allah. waaye di toftal nga xamante ne mooy Moustapha Diop suñu directeur fii ci kër gi rek ma di leen ziara di leen rek kenn ak jàmm waaye noonee lay toftal di nuyu nga xamante ne mooy suñu yaay fii ci kër gi yaay Sané madame Sané ma di ko souhaiter rek une très bonne fête des femmes su ko defee noonee lay taxaw di nuy kilifa diine aada ak cosaan. ma di leen ñaanal yàlla di wax yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay ci mim réew ni ma ko tàmm waxee saa su ne yàlla na leen defal yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla na leen yàlla yiir ndax nee naa ñoom ñooy kaaraange réew mi ñooy yiir réew mi ginnaaw yàlla ak yonent bi ñoom nga xamante ne ñooy kilifa yi dañuy ñaan suñu borom saa su ne naa lii ñu somb yàlla nañ ko yëggale bi jaay Seyduna Muhammad waaye rek bàkk bi ma tàmm yëkkatee saa su ne du ñu dem tax naa ne comme tey bisu jigéen ñi la damay taxaw di rendre hommage suñu ay kilifa suñu ay wéejur suñu ay yaay macha allah ñoom ñoo ñu meññ di ñaan suñu borom bépp wéyjur ñu ñaan suñu borom yal na yàlla guddal seen fan yal na yàlla yiir leen gàllaaj ji doom ñooy wéyjur waaye rek waay jur mooy ki xamante ne rek mooy yiir doomam ba nee naa saa su lu mu mën rek ndeyam ko ko mën a ba tax na dañuy wax way jur yëpp gàcce ngalaama di jara bot su ko defee damay taxaw dugg ci hôpitaux yi di seet ñi nga xamante ne dañuy sutante ñi nga xamante ne dañuy wéra di li ngeer mi ngi leen di ñaanal saa su ne yal na yàlla fëgg bopp yal na yàlla wéral cër yi ñoddi fan yi fa tabaarakallaa nee naa tawat gi bari na wéradi gi bari na waaye yal na yàlla woyofal toll ndax itamit tàmm naa ko wax garab cher na ordonnance metti na waaye yàlla may lu ne ci suñu poche rek ba mu woyof toll ñu mën ko mën a jariñoo su ko defee duma dem te taxaw ma tamit seet ñi nga xamante ne ñu nekk ci mbaar moomu ne ñi nga xamante ne caabi da leen a féeti ginnaaw ñoom itamit dama leen di seet di leen nuyu di ñaan suñu borom yal na leen yàlla may ba ñu génn am mën a delluwaat ci seeni kanam yi mbokk ak seen i kanam yi njaboot waaye rek kii wax ki teewlu mooy mbokkam ba tax na mbokki internet yi dama leen di nuyu di leen ziara bu baax a baax waaye rek ñi ànd ak ñun ci keppaar gi muy les hommes de l'ombre Malika Azal Beyti macha allah taalibi cheikh bi la maa ngi koy ziar waaye rek di wax honneur aux dames nga xamante ne mooy Oulimata la dame de fer moom lay ziara nuyu ko mu ngi foofu ci réalisation bi macha allah waaye rek li ma wax rek xew-xewu jàmm macha allah Linguère moo àndaat ak yéen ci émission bi nga xamante ne mooy yittee jamono yittey askan wi lépp loo xamante ne rek soxal na askan wi moom laa fi waxtaane lépp loo xamante ne rek yitteel na population bi dama koy teg ci taabal ñu pelloo ko waaye tey nag tey li yitteel population bi mooy li nga xamante ne mooy bésu jigéen ñi nee naa le 8 mars du benn bés rek du benn weer rek ay weeri weer la maanaam du jeex na tukki dañoo war a màggal jigéen sargal ko bu ko defee rekk damay daal di ànd ak ñi nga xamante ne rek ci plateau bi ñi ma tàmm àndal saa su tey nag ma am ay gan yu riche jaara buso nga xamante ne tey rek damay dalal ki nga xamante ne mooy Sista yi mu nekk ci sama ndey joor dama lay ziara bu baax a baax di la wax rek bismillah ci plateau Rewmi TV. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Malick Faye maa ngi lay nuyu Alboury Ndiaye. Mhm. waaleykum salaam wa su ko defee noonu lay baras ci ko rek jàll ci ki nga tudd léegi muy Toufa nga xamante ne yaakaar naa ni kenn la ci kër gi muy sama xarit di sama lépp man di la dalal Toufa encore une fois di la wax rek plateau bi sa plateau. tubarkaal la comme ni nga ko waxee rek mm-hmm. plateau bi sama plateau la. Mm-hmm. ba tax na rek euh, may sargal jigéen ñi toog fii ñëpp. Mm-hmm. ah jaaro bu sa madame Diop ñu ngi lay sargal ci bés xam nga sant Diop dafa neex tubarkaal la. ah la sister Marie Fall ñu ngi lay béggee bu baax a baax yow tamit di la jaajëfal. Magui Kambel sama doom la waaye du ma dem te jaajëfalu ma suñu PDG. le président Mbagnick Diop tubarkaal la ma Diop Mbadja Matar ba rayoon. Eh, nañu koy waxee rek Mbagnick bi ci Sokone bokkut ak Mbagnick bi ci Niafar. Ah. maa koy ziar baax baax derrière chaque grand homme nag a toujours une grande dame. waaw waxal euh, ñu koy bëggee bu baax a baax mm. suñu marraine. Mm. marraine lu kër gi. Mm. muy ma maman Jatu Sané. Mm-hmm. Sané bala ma ñeentu. ma ne ko yàqoo ci dara. Euh, lekk nañu ba regg macha allah teraanga yi bay na mm. lool. Mm. loo mën ren bu déwénee yàlla na ko mën daal na nga mën lu ko raw. ndax du ñu ne mukk guleet. Mm. Euh, macha allah di nuyu aussi suñu DG Moustapha Diop. di jaajëfal nag kër gi ñëpp rawatina jigéenu kër gi tubaarkàlla maa ngi leen di nuyu baax a baax. mi ngi noonu bu ko defee rek damay am contentement ak mbégte saa su ne di dalal sama plateau su ko defee rek nga xamante ne mooy jaaratulaay nee naa genn jigéen la goo xamante ne turandoo moom la ñu dippee ka nekk ca Poroxaan mi ngi noonu dafa am màggal lool ma di la ziyaara maam jaara bu so mbaa jàmm nga maa ngi lay ziar Linguère mm-hmm. eh, di ziar képp koo xam ne yaa ngi fii ci plateau bi yéen mm-hmm. ñëpp maa ngi leen di ziar mag yi Toufa yéen ñëpp mm-hmm. di ziar waa kër gi di njëkk ci ziar bi suñu yaay madame Sané moom nee naa leen kenn la ci yaay yi yaay la ci biir kër gi suñu jógee suñu kër baay fa suñuy yaay bu ñëwee fii di fiy fekk yaay yaay ju mot yaay macha allah yal na yàlla dëgëral taxawaay bi di ziar le grand PDG le président Manick Diop cër bi jël jox jigéen cër bi mu jël sa dara jaale ko jigéen. Mm. ñu ngi koy ziar Diop ñu ngi koy ziar bu baax di ñaan yal na yàlla dëgëral taxawaay bi ziar Marème Ba madame Diouf sama yaay jooju fële ci Sika Voir yaay mm. yaay jirim yeeg bàyyi ñu ngi koy ziar di ziar son excellence monsieur Diop. Mm. la personne morale de la famille. ah l'homme qui a fait tomber mon célibat. dégg ziar lu wér. ziar toute la famille Diop. Mm-hmm. di wax ne tey nag Linguère du yomb. Ah, ah. journée internationale de la femme la ñu wax. tey dañuy sargal ki jara sargal. Mm. sargal ki moto sargal. Mm. sargal ki ñu war a sargal. sargal ki nga xam ne. Ah. mënut a doon ilimaan de. waaye mooy jur ilimaan de. Mm. sargal ki nga xam ne. waaw. sargal ko ci ngor. Hmm. sargal ko ci taar. Hmm. sargal ko ci fulla. mooy kan sargal ki nga xam ne. Ah. kenn mënta dem bàyyi ko. mooy ñaan jigéen. sargal ki nga xam ne. Hmm. bu réew demee ba toll fi mu toll. loxo ma ngi ca biir de jigéen fu mu génnee loxoom foofu du baax. kon tey ñu ngi sargal ñu am solo di sargal jigéen jigéen suñ ko waxee mooy àdduna jigéen mooy magasin bi yàlla dénk doom. Mm-hmm. kenn du jigéen. Mm-hmm. tey moom suñu bés la. lu mm-hmm. ñu neex def tout est permis. maa la wax loolu wala ma ne ñambaas yàqul sër ba tax na ki nga ci mu ñambaas rek dafa am solo muy monsieur Diop maa ngi koy ziyaara di ko dalal mi ngi noonu su ko defee damay daal di dalal ki nga xamante ni moom itam dafa féete ci sama càmmoñ muy siste Rima Marifa maa ngi lay dalal ci plateau Rewmi TV. merci beaucoup Wulu Linguère. ñu ngi lay bëggee bu baax baax di bëggee samay euh, samay sœurs yi. mag yi euh, Toufa la Médinoise ak Soxna Diarra maa ngi leen di bëggee bu baax a baax di ñaan rek comme ñaan du doy di ñaan ñi nga xamante dañoo tawat na yàlla fëgg seen bopp ñi nga xamante dañoo dëddu àdduna it mhm. yàlla woyof fol suuf seen kaw taxaral mhm. aj na ñi nga xam ne nag caabi leen mhm. foofu si ni mu gën a gaawee ku nekk di wax rek xanaa ñëw dolli soxna Diarra moom daanaka euh, mooy jigéen ju mën góor ndax def na fi loo xamante ne nii buñ toppee ci moom rek dañuy dem di bëggee aussi bu baax a baax madame Sané maa ngi koy bëggee bu baax a baax wax dëgg neex yàlla jàpp na ci liggéey bi rafet na di bëggee tamit suñu yaay yi mhm. kenn du mhm. wax te bàyyi leen mhm. ndax fii euh, li may wax rek chaque jour dañ naan doom bu baaxee day bëri yaay ak baay dëgg la mais bu bonee kenn ay jox yaay kon boog suñu yaay yi nañ leen sargal bu baax a baax a baax a baax ma di leen ko may macha allah am na solo tey journée de la femme la 8 mars les dames à vous li tax ma wax loolu Mame jaara doo ma bàyyi ma wét ndax itamit euh, dama waroon njëkkee ci madame Diouf ca Sicap Foire borom ñaari G yi te yaakaar naa ni teraanga yi mi ngi noonu bu ko defee rek dañ lay nuyu bu baax a baax li nga wax léegi aussi euh, Sister Rima une pensée pieuse pour ñi nga xamante ne ñoom it ñi nga tëdd armeel ya du seen coobare gënuñu leen ñin ñu fi des ba tax na saa su ne ñun buñ fi nekk fii ci àddina nekk ci Mumbai dañ leen di bàyyi xel et di leen tifaay ay ñaan macha allah ñu jot ko ci barke yonent bi su ko defee de fer aussi nga xamante ne rek mooy Sister Toufa moom jatu nga xamante ne mooy suñu yaay di yaayu kër gi teraanga gi duma fi wax ma jóg te tudduma ko ma di la nuyu et di la ziyaara bu baax a baax wax na rek ne la gis nañu teraanga gi journée de la femme day continuer tey nag dañuy wax nag màggaayu jigéen ak dayu jigéen moom la ñoo waxtaanee moo waral suñu teewaay bi tey tey bis la nee naa bis bu neex bis bu ala dawme waaye nag bis bu dippoog bis boo xamante ne màggal la muy bisu daaru muxti ba tax na rek nga xamante ne mooy maam Cerno Birahim borom daamal daaru moom itamit dañu koy ziyaara bu baax a baax a baax Mbàkke ndax am na ñoo xamante ne ñu nga foofu ci Touba tey ji bis bi ni mu ala daw me waaye ñoo it ña koy màggal foofee wan leen ne leen bis bi benn bis la waaye tamit du de du jeex de ndax tamit démb lañ doon màggal benn bis Mm-hmm. jigéen ñi nga xamante ne mooy sama ay waalo waalo yi sama ay xeet sama ay mbokk ñoo ñee nekk ca Ndeer les fem de Ndeer nga xamante ne 1980 ah le 7 mars la woon bis bi dellusiwaat tey ji muy 2023 yaakaar naa ne la 7 mars ñu tàmbaliwaat encore delluwaat di màggalaat yi nga xamante ne rek mooy jigéen ndax rek di wanek seen dajo bañ ku leen tuutal bañ ku leen nooteel ndax ak njaam gi ñu leen bëggoon jëndee ba tax na tey il est temps jigéen wane dayo wane màggaayam wax naa ne jigéen ñëpp ay faris lañu mm-hmm. jigéen guerre la ñu jigéen ñëpp ay ay jàmbaar la ñu ba tax na damay ndokkeel suñu ja sama turandoo ba Linguère ba ay da Mbodj sama yaaja moom it tey ji bisam bis la tey képp kuy jigéen tax na tey dañuy taxaw màggal la bu baax ndax it ñoo aye ku aye wal sa moome loolu la ñuy wax Toufa damay daal di ubbi jataay bi yëkkati li nga xamante ne mooy waxtaan bi tey thème bi nag du lenn lu muy waxtaane li nga xamante ne rek mooy yitte jamono jigéen ñi ay droits et devoirs de la femme taxawaay jigéen ci société. yaakaar naa ne jigéen am na fu mu toll. képp koo xamante ne góor nga yaa ngi taxaw ci kanamu jigéen. dañuy yaakaar ni rek lii nga xamante ne rek mooy gëddaam ak dayo war na ko mën a jox jigéen. ak jigéen nu mu toll. jigéen dana ëmb dana imbi. jigéen a nga ca kër ga jigéen a nga ca tool ya. ca alxuraan daal nañ wax naan bu njëkkaan jigéen amul njëriñ. ndax jigéen bu musaana judd am na ñu ko daan def. ndax jigéen sax dem na ba am na fu mu daan tollu su tollee ci mucc day làqatu. bu tollee ci ëmb day làqatu ak ni jigéen mel waaye suñu borom dellu na wane ne jigéen dañu koy màggal jigéen dafa am fu mu toll ba tax na am nañ ay droit ak ay devoir ba tax na loolu mooy thème bi ma yëkkati tey ci journée de la femme les droits et devoirs de la femme Toufa kaddu gaa ngi noonu voilà Linguère ko waxee rek euh, mhm. jigéen dafa am ak ak wareef ak yelleefi doomu aadama mhm. euh, na xam nga lu tax euh, jigéen mooy nekk ci kër gi dëgg la jigéen ay yar mhm. jigéen société la en jigéen àdduna la jigéen àdduna la jigéen mooy baaxal mhm. jigéen waaye mooy bonal tamit mhm. ba tax na rek euh, dama naan <clears throat> ñun jigéen mm. nañu waat suñu xel tamit bu baax a baax te xam ne li ñu yàlla teg mm. dafa kawe mm. donc jigéen warul ñàkk valeur warul bañ a valoriser mm-hmm. jigéen war na mën a toog buñ ko valoriser buñ ko valoriser wul yëpp mu valoriser boppam par rapport ak ses faits xam nga des fois nga dégg ñu naan xoola jigéen bi nu mu ñàkkee valeur xoolal ci ndax lan ci ay euh, démarche am ak wala ay xeetu xeetu ñaawteef yoo xamante ni mm. euh, li nga des fois ñu ñu tuutal tufaa ndax ay ay jëfiñu tufaa dëgg foog ni ñëpp a yem dëgg la alors que ñëpp a mm-hmm. tey li nekk ci tufaa amaana nekku ci marifaal mm. amaana tey li nekk ci tufaa nekkul ci jaara bu so mm. li nekk ci tufaa nekku ci mag yi dëgg donc jigéen war na mën a xam boppam xam mooy kan xam fi mu jugee te it ñu jël suñu ndey yi def leen ay référence mm-hmm. tubarkàlla ba ñu toogee ba tey juguñu. dëgg la ñu nekk ay jàmbaar fàq tëdd. Mhm. Euh, boo xoolee avant famille. Mhm. kër yi dañ daan bari nit. Mhm. da daa am aaw am ñaareel. am ñetteel ak ñeenteel. waaye mënoo xam tey ki ñu jur ak ki ñu jurul. dëgg la ki bokk ak kii baay ak ki bokk ak kii yaay mënoo koo xam. mënoo ko ràññatle. ndax tubarkàlla dañ doon dañu nekkoon benn. tey boo xoolee coow li am ci kër yi. det yenn détails yeeg yenn euh, machins yeeg yooyu amul woon avant. Mhm. te loolu lépp xam nga lu ko waral. lu ko waral. Euh, c'est parce que jigéen dafa defaroon. Mhm. xam nga jigéen ay yendu ci kër. waaw kon jigéen ñi ñoo doon defar. Mhm. mais li jamono ji ñu toll. tollutuñu dara du topp kaa. topp topp kaa <laughs> topp kaa. waaw ñun jigéen ñi. ñun jigéen ñi. Hmm? fi ñu toll nii. Ah. topp kaa lañ tal. <laughs> am na si nag ñoo xamante ni nii wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu. Mhm. tey boo xoolee tey damay jox benn exemple boo xamante ni nii dundu naa ko yow dund ko keneen ak keneen na ko. Mhm. tey Marie Fall jàmbaar la. Mhm. bañ nax taayal liggéeyam. jaral ko mu ànd ak euh, tout tànkam. indi ko ci kër gi. c'est pas du dëgg la loolu jàmbaar dëgg koy def. ndax bañkat la. jigéen da nga war a nekk bañkat war a nekk référence. ca la nga nekk. parce que fu góor mënee takk ceinture jigéen tey dafay jóg takk fa ceinture. Mm. sol fa tubay. Mm. da ngay gis am na liggéey yoo xamante ne ni tey jigéen ñi dañ koy def jigéen ñaa ngi def bâtiment. Mm. Mm-hmm. jigéen ñaa def mécanique gis ngeen ko sànq ci émission bu ñu fi les faatu faatu yu ñu invité woon. dëgg tey jigéen ñaa ngi ci rajo yi uli référence la. li ñoom Malick fay di liggéey mi ngi toog di ko liggéey. Mm-hmm. nekk ci régie bi. tey Toufa bu toogee ci rajo bi di animé. Mhm. avant da nga daan toog di animé góoree taxaw teel la technique. Mhm. Mhm. loolu léegi amatul. amatul da ngay toog gérer sa bopp lépp. kon jigéen dafa war a valoriser boppam. jigéen dafa war a xam moom mooy kan. jigéen dafa war a xam gëddëm encore une fois. ñu bañ di dugg ci lu ñuy yabee wala lu ñuy xeebee. jigéen warta ñàkk fayda. ñu dem ba ci kanam. mu ngi noonu yaakaar naa ne xol mooy wax. <laughs> ku déglu Toufa xam ne tey xol mooy wax waaye jaaratulaay waykat ba nee na ndax jigéen xam na boppam. ndax loolu li tax kaddu googu ñu yëkkati ko yëkkatikuñ ko rek nii pour wax ko pour lu neex nopp nit ñi waaye dañ ko yëkkati pour jox jigéen gëddaam jigéen xam fu muy taxaw. jigéen xam ni moom ci boppam li ko war du ay caaxaan du loo xamante ne rek da koy tardeel wala loo xam ne da koy delloo ginnaaw tey bu ñu taxawee waxtaan ne te ay jigéen lañu journée de la femme dëgg la mbéeraay bi neex na lool dañuy mbéeraay suñu bopp léeg-léeg mais nañu bañ a naxante nag fa laa jëm. Mhm. xam nga bu ñu nee journée de la femme. Mhm. di bëgg di mbeeraay suñu bopp. Mhm. dëgg la dëggoo man la fête bi neex na. waxtaan bi neex na lool. ñu ngi ayoo mbeeraay suñu bopp. waaye nag il temps ñu taxaw waxtaan ci suñu biir. xamaat ñun ñooy kan. ndax itamit fête bi neex na xëccoo beeg mbiccoo beeg mbaccoo bi yooyu yëpp dëgg la waaye rek jàpp sa bopp jàpp sa njaboot am fulla am fayda jaaratulaay ndax itamit woykat ba nee na nañu gàddu ileer yi jubli ci mbay bi tool bi mooy Sénégal. am na woykat bu ko waxoon buñ ko daan wax dañ daan yaakaar ni góor a tax ñuy wax loolu waaye tey nee naa fifty fifty la bañ na ko dañu voté benn loi parité la ñu wax mhm. su góor mënee jigéen mën kii day téye fii kii téye fii Mame Diarra ana lan ngay indi ci loolu ci li nga xamante ne rek mooy droits et devoirs tax waaye jigéen la ñu wax xam nga euh, tey bis bi dafa daw mi ndax jigéen mm. ku ko xam-xam koy ak njàmbaaram dëgg la métier boo gis nag am na directeur. waaw waaw waaye métier boo gis. Mhm. am na kacarax di ko yàq. Mm. xam nga bu ñuy bu ñuy def euh, bu ñuy def évaluation ci jigéen ndax man lii évaluation laa ko mën a tuddee. Mhm. jigéen bu ne ak marque bi ngay indaale. comme mhm. téléphone ni mu amee marque. jigéen noonu la amee ay marque. Mm. léegi nag ñun yàlla moo ñu créé ñu nekk ay jigéen. Mm. ñu ne jigéen. dafa am ay ween. Mm. ni weenam di sëggee noonu la mm. xelam sëggee loolu mosuma koo nangu. Mm-hmm. parce que yàlla suñu borom. mu mm. ñu bind. may ñu xel am fu ñu teg. kon ñu suñu xel bu sëggee dara du baax. dëgg la kon ñu suñu xel sëggul. ndax góor bu am problème. ñun ñoo lay dalal ci ñun mm-hmm. ngay ñëw mm-hmm. góor bu feebar ñoo lay faj mm-hmm. góor bu am nakar ñooy dindi sa nakar kon ñun kay xanaa suñu xel manqué wul ñun am nañu xel parce que ñun lépp lu góor dugg tey jigéen mën na dindi góor ci lu bon dugal ko ci lu baax léegi nag dafay dafay ab problème jikko dafay daal di taxaw parce que nit ki li muy génnee nit buy sangu du ko summi muy jikko mm. tey mën nga nekk jigéen am jikko bu baax. Mhm. wala nga nekk jigéen am jikko bu safaanu. Mhm. loolu nattu lay doon. Mhm. parce que fii kenn parfeeru suñu borom mooy créer doomu aadama yi. léegi nag mun nga am destin am jaar-jaar am natt boo xam ne yow sax bëggoon nga mel nii mais amaana meloo ko. loolu mooy waral des fois ñu naan jigéen valeur am dafa nii wala jigéen valeur dafa nii. parce que tey benn jigéen bu def faute. yàqal na jigéen ñu bëri. parce que ci benn jigéen boobu. ci li ñuy jugé jigéen yu bëri. fekk na tel n'est pas le waaye tey benn jigéen bu def lu baax wala soxna maam jaar bu sa sama turandoo. waaw ba keroog àdduna di tukki wayam wa du fay. ba keroog tukki wayam wa du fay te sama turandoo danaan jàng alxuraan toppatoo maam Mor Anta Sali. Mhm. te yàqalu ko dara. Mhm. mais ñun tam jigéen. Mhm. il faut aussi ñu defaraat suñu emploi di temps. li tax mooy bu fekkante ne ñun mënuñu to mun moom far force dañuy liggéey il faut ñu gérer kër gi. gérer njaboot gi gérer liggéey bi. Mm. te benn waru cee am faay. Mm. ndax jigéen. Mm. sunu borom daf ko dénk ñetti dund yoo xam ne ci responsabilité am la nekk. mooy yan ñetti dund yooyu maam jaara mooy dundam. dund borom këram. Mm-hmm. ak dund njabootam. Mm-hmm. gis nga ñetti dund yi yëpp. benn waru cee échec parce que yàlla jigéen la ko dénk. dëgg la dafa ne góor. demal nga ànd yaay yor jigéen. Mm-hmm. mais jigéen dafa la dénk ñetti responsabilité boo ci yàq sa dund jëkkër. am na yow nooy comporté woo. Mm-hmm. xam nga ki ñëw ñaan si la jabar. Mm-hmm. fa bàyyi ay jigéen yu bëri. Mm-hmm. ñëw ci yow ne yow la bëgg. yow nga bàyyi ay góor yu bëri. ñëw ci moom ne moom nga bëgg. léegi nag lay lay lay lay tax moom honneur am du tilim. Mm. yow jigéen yaa koy liggéey. Mm. parce que tey jii am na nooy amee benn comportement rek. moom doo kenn dootu ko respecté. dëgg la nee naa moom xoolal kii bu jógee di jaay di jaay di jaay ngóora te jabaram nangam nangam déjà yow. yow euh, sa der sa der sa deru borom kër sa deru famille borom kër sa deru famille yëpp tilimal nga ko mm-hmm. moo tax jigéen war a nekk ciment rapide war a nekk acier boo xam ne dafay boo xasee ba samp dindi ko fa du yomb mhm. moo tax jigéen war a làmboo ay valeur mhm. war a làmboo njom mhm. làmboo ngor làmboo sutura ràmboo ràngoo nag ñemee responsabilité xam nga responsabilité dañu yaakaar ne ci góor rek la ne mais responsabilité tey ci jigéen moo war a gàddu responsabilité góor xamul xamul ñëw paxta góor xam nga lu mu ah. am xam nga la li mu am li mu am. yow yaa koy organiser yaa koy defar yaa koy tas tasal ba ñëpp mën cee laal. moo tax ñu naan jigéen warul siis lingeer. Mm. ndax jigéen tey boo siisee. Mm. da ngay soxor ba sa borom kër day soxoraale. Mm. parce que yow bu fekkente ne góor sax mooy siis. jigéen génne ko ci. man gis naa sama xarit boo xam ne. jëkkër ji dafa siisoon mais. lu may wax naan jikko euh, doomu aadama bu ne dafa am yàlla natt bu muy teg si yow mais moom saa yu balaa moo mën a yàq añ rek nit ñi ñëw balaa moo mën a servir lekk rek ñi ñu ñëmee dafa dem jëkkër ji dafa dem ba adapté wu ci loolu loo jigéen dangay ngay defar sa borom kër mhm. defar sa àdduna defar sa mhm. àdduna njaboot mhm. Assane Ndiaye dafa woy lu am solo lan la wax yaay booy wuta loo ma xas fu ma neex daagu dëgg la jigéen bu ne war nga koo laam am na solo kaddu yi nga fi jukkee neex naa dégg ndax loolu tamit dafay jëm ci jikko ju laab ndax nee naa kër su naatee jigéen na ko naatal dëgg la jigéen bu ya kër bu yanjee jigéen na ko yanjal ndax kër goo dugg boo demee di nga fa fekk baaw baab ba toog lépp lu fa taaru moom la loolu lépp ci jikko ju baax la xam nga ni nga siis am melokaan boo mel ci góor jigéen jigéen dindi ko xam nga ne jigéen ju jigéen ju baax la mhm. wax naa léegi ñi ngi màggal jigéen teg sama baaraam ci li nga xamante ne mooy jigéenu ndeer maam jaara tudd nga sa turaloo waaye tamit li nga xamante ne rek mooy soxna Astu Janqa kooku génn jigéen la. am na ñu ay référence mu ngi ci we Sitoé Diatta Mame Fallou Wade Wele ñooñu ay jigéen lañu ay soxna lañu waaye tax ñun dañoo waral nampi jëli foofu li waral jikko ji mën a rafet dañuy tataani foofu waaye damay wax comme dañu génn ci jikko dama ne droits et devoirs. lan mooy devoir yu jigéen parce que démb ubbi naa benn thème rima di waxtaane commerce ak jigéen. les difficultés moom laa waxtaanee ndax boo nee commerce ak jigéen li jigéen di jànkonteel lépp la fa bari lépp la fa dugg ci li nga xamante ne rek mooy taxawaayu jigéen waaye yaakaar naa ni am na devoir bu jigéen mën a am ci digganteem borom këram am na devoir bu jigéen mën a am ci diggante ak njabootam ci diggante ak ay waajuram mhm. nee naa démb soxna si nga xamante ne am na borom kër tufaa mën na dem liggéey ci kaw mu am ndigal. Mm-hmm. ndax lépp loo gis jigéen kilifa da caa baax. Mm-hmm. waaye jox la ndigal nga dem liggéey. Mm-hmm. bayangal la may nañ la doole. wallaay jigéen bu amee doole boroom këram a ko dooleel. waaye ci kaw mu xam boppam xam mooy kan. rima devoir la ñuy wax de la femme. ana lan ngay indi ci loolu. waa di wax ne nekk jigéen dafa metti soxna Linguère nekk jigéen dafa metti gis nga euh, soo man boog su ma amee doom mu nekk jigéen rek sama xel day sori parce que jigéen moom mooy àdduna baaxee comme ni ma ko waxee commencement bi rek doomu ñëpp la. su bonee nag bu du bonee doom lu mu bon bon bon bon ji du daw. ak lu mm. mu métti métti du daw. Mm. chaque jour ma dégg yaayam moo ko ci bàyyi mm. amoo pexe. si sa biir la génnee. benn pexe. di wax nag euh, comme maam si sax na jaar fi mu fi mu fëlee. dëgg la dañoo am ay référence bu baax sax. te gis nga bon. Ah. moo métti mais baax. ak jafe ak a jafe. ak a jafe. Mm. waaye ak a yombit. Mm. ci nga xool yow fi nga bokk. moog sa tayam merci beaucoup ak xoolit. Mm. fi nga ko mën a amee ndax par exemple sax di nga bokk ci famille boo xamante ne danga naan man bokkuma ak ñi dara. Mm-hmm. ndaxte mën nañ am benn melokaan bi mm-hmm. yow nga am beneen melokaan bi mm-hmm. moo tax gis nga jigéen te jigéen mooy defar comme tufaa lu mu ko waxee mooy defar mooy yàq ndax jigéen mooy yor njabootam ñuy nekk xale mu di leen xool xam nga li may wax chaque jour xale ñeent koy yar. mooy benn bi ci kër gi muy yaay. Mm. kenn du njëkk doom ci ci kenn du njëkk euh, doom lu dul yaayam. kenn du njëkk si moom lu dul ndayam. Mm. bàyyi lu mu lu mu ut lu mu am am am. Mm. ndey ji mooy def ci moom li ne ci moom. mu dem ci école ba. foofu tamit dañ koy jàngal. waaw waaye gis nga li nekk ci li nga ko def ci moom. Mm. su génnee it loolu lay appliqué. Mm-hmm. mbedd bi tam am ci wàll. Mm-hmm. moo tax ñun dañuy nañu delluwaat suñu bopp. Mm-hmm. xam suñu bopp. xam suñu bopp parce que tamit léegi nag dafa yomb dafa neex. dëgg la bu njëkk ba yaay suñu yaay tool yi lañ daan dem. ñun dañuy toog ci plateau télé defaroo ba rafet. Mm. taxaw wax deux heures de temps dem ñibbi. te di tey dinañ toppatoo suñu njaboot. dinañ toppatoo suñu borom kër. dinañ daw de gauche à droite te tamit toppatoo ay góor ay njëkkee. ci la ndax ci lañ bokk. Mm-hmm. daw ba bëgg a dee. Mm-hmm. waaye ba tey dafa neex. dafa neex ndax dinañ dinañ soxla dinañ am dugub yóbbu ko ci machine ba. waaw suñu yaay dañ daan dëbb ba seen loxo yi waaw. ba futtu ngay wax. ndox da ngay buri robinet bi nii naan. Mm. bu njëkk ba dañ daan rooti ci ay kilomètres. dëgg la dee di yenn seen bopp. Mm. teerewul nga ñëw war a toppatoo sa kër. moo tax ñun nañu sant yàlla bu baax a baax te sant suñuy way jóg. xam ne ñun ndaw ñi tey dañoo noppalu. billaay wallaay dañoo na dem ci suñuy ndey examen lañ ko. wallaay dañ doon def examen ba ma ci matte xam ma ci matte tem tem mi ngi noonu <laughs> tem tem te mu métti nga jël sa sa sa daalo yu yàgg dugal mi ngi noonu sama man ndeysaan def naa ci benn dëkk boo xamante ne mm. damaa dem doon def benn formation may togg dama daan wàcc midi ñëw togg may togg sama gaz jeex ma jommi parce que ndakaaru laa jóge xaw ma mat dëgg la ma ñëw ma ne bi si maire bi ma daroon ma ne ko gaz bi jeex na de mun ma jël am na ay yu nekk foofu ak ay ndéef xaw ma ndax xam ngeen waaw ndéef waaw ndéef ma dem xool gis affaire bi nu ma ñëw ne ko lii de su ma ko naree toggee ma woote Dakar ñu indi ma ñu indi ma ñu yónnee ma xaas ma jënd gaas mm. mun ma bi laay doom dangaa xamul mm-hmm. boo xamoon mm. di nga jël ci lii nga togg ñu lekk. anamu tey lum la indil. billaay xam. jàngat lan la la jural tey am xam-xam. maire ba yëkkati woon na dépense yëkkati juróom fukk ca ba juróom fukk li juróom fukk laa wax xaalis la woon mu yëkkati ko jox ko jeeg ba ne ko tund gii yëpp yooyaa fi am juróom fukk ci jamono yooyu tey kuñ ko jox looy wax ak ni jamono mel ni dépense mel dama bëgg rek teg foofu sama baaraam tufaa ngi reetaan xam na li ma wax mhm. jeeg ak këram la muy dundee ci biir këram ak fii jamono toll il faut nga am fayda am mhm. benn fardo boo xamante ne da koy ñemee yenu mu métti mhm. métti nga dékku ndax it yaa fa tuur sa biir yaa bëgg sa say barkeel ndax jigéen la ñuy wax ndax ñu toog bala 8 mars rek ñuy yuuxu suñu ay loxo jigéen jigéen jigéen déedéet dañuy taxaw waxtaan ci suñu biir ndax nee naa droits et devoir laa wax buñ nee devoir c'est pas parce que rek am nga noo ci kër gi am nga situation tekki nga yaa ngi liggéey war a sofantal sa borom kër en tant que jigéen te nga war a mën a am way woo war a mën a dégg maam mhm. jaar lan ngay indi ci loolu ci jigéen devoir yi nga xamante ne rek mooy soxna turi magi soxna sista magi ay ca maa ngi lay dégg comme li ñu ñu faral di jàngal rek ne jigéen day nangu dëgg la ndax boo nangoo rek dangay noppaloo noppalu ay waay ñëwaatal foofu man ni jigéen dafay nangu dëgg la boo nangoo da ngay noppalu mm. mbaax méttiwul mhm. yomb na yombul mhm. li ñu naan baax yomb na waaye dëkk ci moo jafe dëgg la te ku xool ci say way jur bu jigéen mm. xool démb xool barki démb xool tey. Mhm. xam ni la war ngaa defaru. Mhm. ndax defaru méttiwul. waaye dañoo roy ci nasaraan si ba fàtte suñuy mm. valeur. waaw loolu am na roy dàq. waaw dañoo roy ba dàq. Mm. te nag mën naa ñàkk. ndax ñàkkuñu ay royuwaay. Mm. maam jaara bu sa ñoom faa wàddu wele. na fi macha allah mais xale yi tey li may wax naan jéegu TNT yi. jéegu TNT. Ah, ñëwat toggatunu yakkatunu dañuy tàngal. dañuy tàngal dañuy tàngal dañuy togg benn ceeb añ ci juróomi fan allahu akbar loolu fi xew jéegu teente mm. te mu leer na la ne am nga matukaay te mën ko dafa dépense doy na ñu ngay jox koy def da nga koy di ko dugg ay tontine yaa ngi xool sëba fu mu baaxee nga bokk natt mm-hmm. or fu mu baaxee nga bokk natt mm-hmm. tubaarkàlla nag nanu defaraat suñu jikko yi xool ci suñuy yaay mm. suñu yaay dañuy xëy gàddu paan dem mm. jaayi ji ñëwut jaayante ko togg añ bi indi reer ñëw ñu daw ba dee mm. kon nag bu ñu sagganee mm. li ñu def ci ñun mm. nañu defaraat ci koy defaraat comportement yi te fonk borom kër yi tubaar la tey nag wax dëgg yàlla journée de la femme la ñu wax de mm-hmm. ah à vous les dames laay wax honneur aux dames waaye tamit xorom bu neexee mm-hmm. ci cin walaay góor ca la de waaye ci kaw ñu xam ko waaw yow Toufa dama ne suñu ne devoir de la femme waru tax rek ngeen bal ñu ci kàddu gi liñ naan ñàkk teg ci kër mm-hmm. gis nañ ko ndax am na jigéen ñoo xam ne li kii wax léegi da ko wax pare ëmb na lépp ndax itamit nag nekk ci natt yi mm. nekk ci ci ci mbedd mi. wàññi dépense koo ñëw daal di ànd ak moom moom. di jigéen. mais dëgg la wàññi dépense di ko comp di foo koy dugal. waaye yow bu kër gi tardé ku ko tardé. te boo génnee say doom mel ni ay doxandéem. Ah, nekk ci mbedd mi weex tàll ñu ne kii koy mm. ndayam. ana borom kër ga xëy na juróom-ñaari fajar dem liggéey. te ñun jigéen dañuy waxtaan rek ci suñu biir dëgg la. <laughs> waaw mais dëgg la dëgg la am na yaay yoo xam ne taluñu seen njaboot hmm. Hmm. bu ñu génnee mel ni tufaa sañ sa ba jekk génn hmm. alors que seen njaboot ñi ngi mel naka su dul noonu seen jëkkër lekkul naanu comme ni ko magi waxee dañuy tàngal ceeb juróomi fan baa bu ñu tegee soos chaque jour ñuy tàngal spaghetti bu ñu ci dugal <laughs> non réew mi li fi am dafa bari li ne ci réew mi dafa bari am na jigéen ñoo xamante ni nii dañoo góorgóorluwul dara nag nañ ko wax te dee parce que des fois na nga gis góor jëb jóg ba xaw a xaw a yab jigéen sax te jigéen ja la bu bukki dabee waxambaane ca doxin wala ay ca parce que nit gis nga àddina mm. euh, suñu yaayee mm. mun nañ lu ne def nañ lu ne ci kër mm. te taxul ñu kenn dégg ñu ne mësta am yuuxuwuñu dawuñu daayuñu léegi xale yu jigéen ñi seen appartement la ñu yoree kenn bañu ko mm-hmm. waaye la lay sa devoir na nga ko def matale ko mm-hmm. des fois nga bett jigéen fekk ci biir këram muy rus na sax moom yow ni nga ko bettee naan la ndax xam du tax woowoo ma mm-hmm. pour lan këru famille da nga dugg doo woo kenn dañuy tëbba bool ba tëbba boolu bool def guddi gi mm-hmm. Mm-hmm. loo xamante ni nii te mag ñi mi ngi am am na si am na ay kër yoo xam ne ba fa duggee ba léegi bool dafa nga fa mm-hmm. mais am na kër yoo xam ne tey boo doon bettoon tey dugg seen biir kër yi ne leen damaa soxla ceeb bu ma lekk ñu ne la amul tuuti laa toggoon dëgg la jamono metti na waaye jigéen taamu nañ ca xër yaatu jigéen day defar kër waay wallaay waxate ko de ah jigéen da doon day gis te tëddee bëgg naa boobu xeetu jigéen hmm. bëgg naa jigéen gu set tamit hmm. bëgg naa jigéen ju nga xamante ne nii ku la xool xool say njaboot du ne a cam hmm. parce que bala gis nga avant euh, sama yaay bu ma duggaan di ma koy nuyu au passage mu nekk une dame de fer une dame de référence euh, du may sax sori ci moom dëgg la mais bu ma sanguwaan ba génn xam lu muy njëkk xool ci man samay tëstan <laughs> déedéet góob ma de testé ni lay ñu ko xool. waaw boo ñu nee mun a delluwaat mën nga duggaat. Mm. tey j'ai pas regretté. Babacar Ndiaye journaliste la ci kër gi la ne. fekk na ma sama kër du benn du ñaar tagguma sama bopp nag. Mm-hmm. mais xam nga Toufa ci rajo bi ak Toufa ci biir këram. mi ngi noonu te jigéen jooju la ñu soxla waaw waaw macha allah du caagi ñu da ngay toog ci rajo di liggéey wala dem nañu ba léegi sax wala dem nañu ba léegi sax maa ngi doon wax sàng boo nee damay takk animatrice wala nitu média hmm. ñu ne pour lan du jigéen ju baax du la sayal c'est parce que ñëpp ñooy yàq comme ni ko kii waxee maam Diarra. Hmm. am na ñoo xam ne ñooy yàq tey ñu baax ñi. waaw et xale yi sëy la ñu bëgg. Hmm. dañuy toppatoo seen i kër. <laughs> par contre am na ñoo xam ne tel ne pas le cas. Hmm. taluñu seen i jëkkër taluñu seen i njëkk taluñu seen i goro taluñu kër gi taluñu dara. man bul ma defal dara mais may ma jàmm. ba moo mayee jàmm rek kër gi neex. waaye Touba da nga wax lu am solo yi tamit euh, olof nee na la butéel ba def rek la sañ bay xeeñ. maam Diarra. gis nga tamit nee nañu lu nuyoo ci buntu kër gi boo duggee ci biir di nga ko gis dana la fay xam nga lu waral loolu mm-hmm. ndax tamit munoo nekk nday mm-hmm. nekk ci biir kër gi gis nga euh, dañuy waxtaan nag ci suñu biir il est waxtaan parce que munoo mel na la neex mm-hmm. defee na la neex sëyee na la neex am na la neex mënta am amul fenn nee nañu bu méttee nga daw bu safee nga daw doo fekk dara doo fa mës a toog cib jeeg moom la ñuy waxtaane tey taxawaayu jeeg société droits et devoir la toll ba tey ndax tax xam say devoir war na ba ci biir kër gi yow mi nga xam ne yaay soxna wax naa ko sànq bu kër baaxee soxnaa ko baaxal mhm. ndax mu munoo yow mel nu la neex waxe tamit la répétition et pédagogie ah, waaye tamit yow sa nee naa léegi magi euh, ah. sisterima mhm. gis nga li gën a jafe ci àddina mooy ñaari wax ko ko sànq mhm. muy mbaax ma tegal la ci set ak a jafe nee nga sànq sa yaay daan na am cetlu ci yow am lu mu la wax jigéen am foog nga am benn melokaan boo xam ni gis nga togg bu setee ka koy lekk ma nga feeñee ca kubéer ga mm-hmm. waaye jël bool bu xamaat tàng nga teg mm-hmm. ceeb ya tax ca bool bool ba te nga ne ab jeeg nga mm-hmm. xeeñ waañ say ma xaritu jëkkër ñëw toog cib jeeg kenn xamul looy nuroon ah li ngeen doguma la de ñëwal gis nga dama daan nekk suñu kër mm. tey tele laay waxee suñu waa kër mën nañ ko seede dama daan wax sama tante bi nday jetu des fois ñu jékki-jékki toog ma ne est-ce que man kii moomu jur barki alxuraan. wallaay des fois ma dama toog ba nag est-ce que moo ma jur. parce que sama yaay maman ba may nekk ci kër gi aw ma mm. jëkkër aw ma fay mm. fayloo ma ko fóot. togg utul ku koy toggal. Mm-hmm. maay togg maay mm-hmm. toppatoo samay rakk. Mm-hmm. maay defar néeg maay raxas douche. lépp loo xam ne tâche ménagère la maa ko doon def ci kër gi. dëgg te terewul bu ma paree. damay dem liggéey ji mm-hmm. yàqalu ma dara tey mm-hmm. waaw mi ngi noonu xam nga jigéen dafa war a taxaw ci kër am fa benn melokaan wax naa ko léegi mm-hmm. ndax itamit nekk ci kër liñ naan jigéen soxna dafa war a baax ci kër ndax mooy tax mooy indi développement cib réew koñ ba nga dëkk am na noo xamante ne boo ko fa melee ñëpp dañuy roy ci yow boo génnee ñu di la joxoñ naan xoolal soxna si booba dafa baax daf ko faa wane daf ko faa jëmbat mm-hmm. ñu naan xale bu jigéen am na benn melokaan boo ko melee yaa bu max sa bopp ca góor ña mm-hmm. yaa bëgg a yàqu waaye am na melokaan boo xam ne boo ko melee yaa bu max sa jëkkër mu dem uti ñaareel tey nag xam naa maam Jaara dina kontaan ci loolu <laughs> ndax itamit mënoo nekk jigéen ci kër macha allah day soxna ju gën ku nangu liggéey ku nangu liggéey soxna soo xamante ne dafa jël jikkoy turandoo li ma neex ci moom kaajeew ma ko du loo xamante ne télé bee tax ma koy wax dafa nekk jikko ju mu lamboo muy bañkat yi tamit di royukaay ndax nee nañu ku jël baax ci sa turandoo jël juróom-ñaari kooku day baax par waaye dama taxaw tudd ci devoir de la femme nekk jigéen warul tax nga nekk ci biir kër seef sa borom kër su waxee benn nga ne ñett maa nga tàcc ko tëgg bool lu ne nga def ko amee kër ga kër gay riir te nga ne da ngay sëy xamoo sa devoir su waxee nga yàkkamtee dem kalaame na nga war war a mel meloo ko cib colin jigéen bu la fa bàyyi dem uti sa moroom yaa yaa bu max sa sa jëkkër mu dem. Mhm. da ngay wane cet ci sa kër wan ak dëglu ci sa biir kër respecté jox cër sa borom kër. ci mhm. say devoir parce que itamit am nga droit waaye am na lu la war sa diggante ak sa borom kër maam Diarra mën nga ñëw foofu. xam nga lingeer waaw <laughs> xam nga sëy. Mhm. bu ñuy sëy. borom kër taxul ñuy sëy. dëgg la jëkkër. taxul ñuy sëy. sunu boroom. Mhm. moo tax ñuy sëy mhm. Mhm. ndax sëy sunu borom moo ko santaane gis na bu ko yàlla santaanewul woon am na jigéen ñu bëri ñoo xam ne duñ ko def mais dafa fekk ne yàlla moo ko santaane moo tax booy sëy da ngay sëy te yàlla rek tax booy sëyee yàlla dina ànd ak cet na yàlla amul daray tilib sunu borom bañ na ko booy ja booy julli da jàpp jàpp boobu c'est pas pour rien moo tax mu def ko sunu borom dafa bëgg lu set léegi nag euh, doom magasin la. Mhm. saa yu jaayee perte nday jaa lekk bénéfice ba. ñëwaat nga ni. ma ni doom. Ah, ah. magasin la. waaw saa yu jaayee perte. Mm. nday jaa lekk bénéfice ba. li ngeen kenn du nàmp meew di gàll bi nekk. déedéet kenn du nàmp meew di jeex diwtiir de ñëwal. jigéen. da mm. ngay nangu parce que mënuñu dem sans jigéen mënul dem sans góor góor mooy wéeruwaayu jigéen góor mooy doole yi jigéen mm. góor mooy xoromu jigéen mm. góor mooy àddina addinaay jigéen mm. l'homme et la fem sont des êtres complémentaires loo tax yàlla boole leen kon ñun mënuñu dem sans góor moo tax ñu war a respecter suñu borom kër yi parce que fii tey li ñu naan derrière chaque grand homme il y un une grande dame mais derrière chaque grande dame il y a un grand monsieur comme mon mari eh, eh, tonton Marie eh, way sax monsieur Diop tegal sa baaraam maa ngi ñëw xarit di ko ay eh, waay dégg wul bi nee na comme moom Marie bu rat dimale sa kanam du dell day <laughs> étage waaye ma ni dama bëgg rek ñu dellu si waat ci devoir de la femme mm-hmm. ndax itamit maam Diarra wax na ko léegi mm-hmm. jëkkër baax na mm-hmm. ndax itamit xam nga ñu naan sa jëkkër ju ñaaw ji moo gën sama far wu rafet dañ koy wax amul sax na sa far wi jonga ma na mel na mu war a mel te doolul ki nga xam ne moom mooy ki war a jël ci farataak sunna Muhammad maa ngi ñëw Toufa xam naa ne di nga egg ci loolu fu mu ne nii fu mu mar na waaye rek damay wax ak ki nga xamante ne rek mooy sister xam nga ma ne devoir de la femme dëgg la jëkkër dafa baax ci jigéen nga xam ni la war sa diggante ak sa borom kër wax naa ko sànq kii nee na léegi am na nooy toll buñ ne da ngay liggéey ci rajo wala télé ñu ne pourquoi c'est parce que ndaw soosu du ndaw soo xamante ne du jigéen joo xamante ne royu kaay la mm-hmm. am na lu mu wane mm-hmm. nit da ngay am kilifa mm-hmm. nit dana am kilifa sax te du am borom kër jigéen li tax ñu koy jël fekk ko takk ko fañ ko war a takkee mhm. li tax ñu naan ndax jigéen xam na boppam journée de la femme mhm. moom la ñuy wax mhm. moo tax ma ne jigéen da nga war a am kilifa am noo mel ci sa borom kër waaye bu bukki dabee waxamaaneem ca doxin bala boo gisee ñu ne benn tâche dal na jigéen ba góor ñi bëgg yëpp ci benn panier c'est que am na fu ñu visé am na lu ñu gis bu ñu yeb waaye ñun jigéen ñi nañu waxante dëgg newal ci devoir de la femme ci borom këram ci biir kër gi xam nga balaa may wax borom kër sax mooy jigéen ndeysaan dafa suufee jigéen dafa suufee ndax buñ ne kilifa sax sa mag bu góor wala sa papa sa rakk bu góor nekk ci kër gi sax sa kilifa la mm-hmm. góor moom ñu wax a wax a wax wax ba romb leen dëgg la te dañuy topp seen ginnaaw mm-hmm. alhamdulilah nag yàlla bi mu ñu mayee ñun ñu fi daje ñëpp ñi ci am jëkkër ñu am borom kër ñu ñuy bàyyi ci table bi mais garaaw eggal <laughs> maanaam man ak Tifa boo ak soxna jaara bu sa <laughs> yàlla def na dañoo am borom kër mu bàyyi mm-hmm. ñuy liggéey bu ko neexoon du ko bàyyi du ñu bàyyi te même bu ñu te bu ñu bàyyiwul daf ñuy neex ñu toog mun a naxaruñu ñu dem mu dem mm-hmm. seeti koo xamante ne bu ko nee toogal mu toog mm-hmm. ñun nag dañoo boole nañu boole luñ neex ndeysaan maa ngi bëggee sama sama borom kër bu baax a baax mm-hmm. ndax fan yi yëpp day dagg liggéeyam ñëw teel ma sama tuut ah, tànk xam nga loolu ah. neexul yombul hmm? mu bàyyi ah. liggéeyam man ma dem liggéey waaw kon loolu pour ci jàppale la nag kon xam nga loolu pour jàppale ma ñoom it tamit nañu am yërmande ci ñun bu baax a baax xam nga tamit lu wax ji neex a neex neex mm. tamit nañu delluwaat ñu tam ci suñu bopp. Mm-hmm. ndaxte tamit ñun ay jàmbaar lañ. wallaay wallaay ay jàmbaar lañ. Mm. kenn xamul ban heure la euh, Penda Sène ñëw fii jàpp suñu kanam gi def lu ko neex. maa wax li kenn xamul heure bi. Mm. ak ñeneen ak ñeneen. ñu nekk ci kër gi. Mm. ba pare nangoo liggéey xam nga mm. tey jigéen mm-hmm. bu demee liggéey jënd benn même bu fekkee sa bopp ngay jëndal mm-hmm. sa jëkkër la war mm-hmm. xorom boo ko jëndee sa kër sa jëkkër la war da la ko war a fay nàmpal bi ngay nàmp sa jëkkër sa jëkkër mm. sa doom mm. sa sa jëkkër da war a fay ci yoon ci yoon waaye tamit nag loolu ñoom ñëpp na ñu ko bàyyee ndax bu la neexoon ñu ne leen ñu ne ñu nañ toog te gis nga euh, jàppale sa jabar mooy jàppale sa bopp dëgg la ndax sa jabar boo ko jàppalee ba xelam dal mu mën a dem uti ji mën a indi ci kër gi rek mi ngi lay jàppale jàppale sa njaboot. Mm. Mm. ñu ne dañoo nekk milieu boo xamante ne dafa doy waar. surtout ñun ñi nga xamante ne ay rappeurs lañ. Ah, ah. rappeurs yi waaw. Ah, dañ nekk dañ waaw dégguma de loo wax dañoo nekk milieu bu doy waar. Mm-hmm. gis nga ndeysaan bi may doo a dugg ci rab bii. Mm. samay wëyju sax ñu moon yow yow tuxkatu yàmbaa nga nar a doon. déet waay ah waaw yàlla yàlla sedd na lool. Mm-hmm. nga génn ci mbedd bi sa koñ naan kii bëggul baax. Mm-hmm. te pour pourtant métier la. Mm-hmm. pourtant lu ma war a suturloo sama ak sama njaboot la. walaay tey nit gis la nit ki nag euh, parfois nit mën na la yeb sax. Mm-hmm. fekk yow doonoo ki mu mu foog. Mm. dëgg la am na. l'apparence est souvent trompeuse merci beaucoup. Mm. tey tufaam yi bi muy dugg ci métier bii. Mm. nañ ne kii de ku ko takk doo am jabar. Mm-hmm. ndax pose ongalam lay def. toog ci télé bi télé bee ko laaj. wala rajo bee ko laaj. dëgg la da nga yor danga yor image boo xamante ne tufaam même bu nekkee kenn ku jigéen mi ngi xool ci moom. tey bu jógee nii. dina am koo xam ne dina ñaw tufaam bi dinaa ko ñaw. Mm-hmm. kon dafa war a defar boppam. Mm. defar boppam nag du tere. Mm. nga mën defar sa kër. walaay du tufaa rek walaay boo fekkee lingeer ca këram nga xam ne fekk nga fa lingeer pire. Mm. ñool mi ngi noonu moo tax nañu nañ ñuy nañ ñuy nañ ñuy nañ ñuy jox cër bi ñu moom. ñun tamit bu ñu joxee suñu cër ba pare. nañ ñu ñuy jox cër bi ñu moom. Mm-hmm. ndax ñun ñooy defar. dëgg la donte ñun ñooy yàq. mais ñun ñooy defar. te ku fi baax. ñun ñoo la baaxal ñoo fi jur waliw wallaay wallaay keneen jurul waliw ko dul ñun waliw de. képp ku yonente fii. Hmm. ak bu fekkente ne ci leeru yonente yi lañ ñu lañ ñu yonal leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am dafa am dafa am way jur bu jigéen. Hmm. ñu nekk magasin. Hmm. bañ na ba yàlla dafa ne. papa donte mooy kilifa. waaye danga naan yaay ñetti yoon. doogu indi bàyyi. moo tax ñun. Mm-hmm. nañ ñuy sargal. Mm-hmm. bu ñuy sargal bu mm-hmm. ñuy sargal suñuy bopp. mu ngi <laughs> jigéen dafa am doole ci société. ba tax na suñuy càmmiñ ku ñu waxee lii wax lele. ndax mënta ne ñun ak yéen ñoo far. waaye nag tey dañoo aye olof nee na ko aye wal sa moome. ba tax na warul tax na ngeen war ñoo mën a yab. da ngeen dañ leen di wàccee dëgg la. mënuñu dem sans yéen ndax yéen ñu yilif dinañ leen jox seen àq ak seen yelleef ba mu mat waaye tamit ci kaw ngeen xam ñun ñooy ñan ndax léeg-léeg ñu ëpp leen doole ñu siisu duñ ko nangu booba yàlla daf ñoo daf ñoo daf ñoo tàccu waaye nekk mhm. gis nga li nga naan ko boo ko fekkee ci këram mhm. li ngeen boo ko fekkee ci këram dafa summeeku wóodoo sër mhm. li naan sër ak tiset di ko xale jeg yooyu lay def damay fóot damay togg damay def lépp bu heure liggéey jotee boo ñëwee doo xamee kuy liggéey boobu dama ñëw pour liggéey sama kër ba ma fekkee xam ne ma damay liggéey mi ngi noonu ki nga xamante ne mooy système ak yi toujours dama taxaw rek ci li nga xamante ne rek mooy devoir jigéen toujours ci devoir jigéen xam nga jigéen boo nekkee ak sa borom kër dëgg la sëy bi neex na lool xaritoo yi neex na waaye lu tax mënuloo yaatal nga doon jigéen joo xamante ne tëddee woo njaaxaanaay yow mun loo supporter jëkk njëkkee dëgg la mm. njëkke yi sikk nañu ci benn boor lool ci ménage bi la waaye am na ci yenn soxna yoo xamante ne lan moo indi dama bëgg a dem wéetoog sama borom kër appartement mm. nee nañu sëyu xale bu ca mag ña jàppal du baax mm. ndax dañ naan kër gi tàng na rëb na parce que yow la nga dund xam ko bëgguloo coow bëgguloo problème waaye rek jigéen bu baaxee kër baax yaatalal sa ginnaaw am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk ak seen i goro ci biir mhm. na ñoo xam ne ñu ngi dëkk seen i mhm. lu baax ana nan nga gisee loolu rek ah waaye daalin koor laa wax nanguwul doo dégg daalin koor doo dégg daalin koor ndax léeg-léeg ñu bàkkee ko jigéen yaay daalin kooru kër gi waaye Aïda Samb wax na ko ñëwul ci loolu na jéegu teen tey li ma leen wax rek ñoom ñëpp fax Hmm? ku ne di sinab di dugal naan man daal mu neex ma mag yi day wax affaire yu garab ñëw nga ni jigéen ma ne jéegu TNT yi fi mu ñëpp dañoo fëx di naan daalinkoo laa daalinkoo doo ko wax dañ la koy waxal mm-hmm. dëgg la jigéen da ngay nangu boo nangoo rek noppalu ba ngay nekk sa kër yaay sa yaay dina la yekk njaajaan njaay te doo taxaw jàkkaarloo defanteeg moom mm-hmm. say mag ñoo mënti nekkal ko mm. jikko bu noonu nga nekkee woon sa kër ba mm. mënoo taxaw jàkkaarloog sa yaay mm. boo ko defee sa yaayu boroom kër di fa toog mm-hmm. waaye bu ñu la nee benn nga ne fu ko jël sa laamin def ko ne bool bu bees wa di réeli réeli di réeli réeli ah. fu waaye toll di la dégg nga naan ma la di fëgg sa dënn yaakaar ne yaa fa ne da nga am devoir bu la war sa diggante ak sa borom kër en tant que jeeg sa borom kër buy xëy doo xool lu mu sol bu wàccee doo lijjanti a jotee da war a yëkkat sa téléphone woo ko waaw bonheur mm. mbaa ndekk mbaa añ nga mbaa def nga lii mbaa def nga laa yooyu day dundool xool nit dafay bëgg ku koy apprécier muy góor muy jigéen wallaay toog ne ngàmm morso bu tooy ah, dañ naa na tooy na guus na ay eh, waay eh, na morso wax loolu tubaa loo wax ci loolu ndax xam naa ne sànq ba léegi yaram baa ngi tàng jël ñëwal ñëwal ñëwal c'est que man magi laa bëgg. waaw loolu moom am na moom ndax wax na ay wax yu garaaw léegi ñoom. sama rakk ji laa bëgg magi Kambel. Hmm, gis naa ko. <laughs> bon li nga comme ni nga ko waxee comme ni nga ko waxee rek bon ñun daal dañu delloowaat suñu xel. Hmm. delloowaat suñu xalaat. Hmm. te bañ a rëyal suñu bopp. jéem a suufee suñu bopp. te xam ne àddina amul solo. malgré ay jigéen lañu. waaye am nañ sasu àddina. dëgg la sasu àddina bi mooy. ñun ñoo war a defar. lu yàqu dañ naan jigéen. des fois da nga gis femme yàq femme. femme yàq femme. bari na fi donc bari na fi te je pense que ni lu war a lu ñu war a jël. Mm-hmm. tegee ko nii parce que jamono jooju dañu dafa dafa nar a gën a metti te dañoo mm-hmm. toll foo xamante ni nii mm-hmm. euh, ku ci nekk rek yaa ngi wër sa damit donc nañu jéem a jóg. fighting suñu life mm-hmm. liggéey mm-hmm. Euh, ngir njaboot gi mm-hmm. xool nu ñu tegee ci yoon suñu ay njaboot xool nu ñu tegee ci yoon dimbali suñu ay wayjur parce que je pense que ni képp ko jóg di liggéey rek wala nga am noo tollu loolu mooy sa objectif ne dama bëgg a màgg teral yaay teral papa ah tubaarkàlla comme ni ñu koy waxee tey ñaan nga yàlla li nga xam ne moom ngay dund yow ñaanoo yàlla sa ay njaboot dund ko donc nañu xoolaat suñu bopp delloowaat suñu xel tuuti te bañ a dara bañ ñoo fëq am na solo mu ngi noonu am na solo sànq ki nga xamante ne mooy Sister Ima dafa wax lu ma neex benn baat bu ma neex daf ko ci bërëxal ndax tamit ñun dañu nekk ci kër gi di daan suñu doole. waaye toujours dañu gërëm boroom kër gi. Mhm. muy le grand PDG toujours dama koy ubbee ci sama émission. waaye xale bi ne ci kër gi di taaral ñi nga xamante ne ñooy soxna yi nga xamante ne ñu toolee tey di wax ba mën a taaru moom la muy la brave la lion la charmante. Penda Fay laay wax Fay biram Penda Fay Penda Waagaan seng sengi biram Jéy kewe yaay Awa Jaañ dama lay bakk xam nga li tax ndax da ngaa baax. Mhm. su la neexoon nga rajax rajaxee suñu kanam yi bu ñu génnee dañuy mel ni naka sudul noonu. Mhm. waaye defoo ko loo def da nga ciy booleel laa biir tey bu ñu taaroo bu mën a taxaw ci petit écran bi ñu gis ñu yow yaa ko gërëm fenn waa gaar ñu ngi lay gërëm bu baax baax maam jaara damay dugg toujours ci droit bi euh, devoir fa lay tëjee mën a egg ci droit yi parce que ñaar ñaari point laa taxawal xam nga mun na ñu wax le 8 mars di màggal jigéen ñun ñi nga xamante ne ay njàccaar la ñu ñu ngi toog waaye suñu xel day dem ci way laago yi maam jaara am na ñu cër ci réew mi il est temps ñu jox leen seen wàll ndax am na ñoo xam ne fi mu ne nii dañu am métier mën seen métier mën loolu la ñuy liggéey ñu ñëwee jox la nga kontaan bu ñu jëlee dàll liggéey ko jox la nga sol nga kontaan. boo leen fekkee te ay jongoma la ñuy doon ay faaris la ñuy doon waaye problème bi ñu am mooy léeg-léeg ñu egg ci biir kër war fa sëy ñu xeb leen ndax lan dañu wàññeeku. Mm-hmm. maam jaara tey dama lay jox euh, parole nga wax ci loolu xam ni way laago la nit la comme ñun. dañu am droit am devoir ci biir kër nañ leen respecté ndax tamit ay soxna lañu dañu bëgg sëyti yàlla tax waaye génn wàll nit la ñu di ko cof di ko xeeb ci biir kër gi joxuñu ko àqam ak yelleef ci biir kër gi en tant que soxna te ñu ngi ci population bi nag ñu ngi ci réew mi di def la leen war maam jaara seen warugar li nga xamante ne mooy mooy way laagoy en tant que jigéen nga wax lu am solo parce que ñu ngi may message rek naan moom bu fàtte way laa yi. xam nga euh, lingeer. Hmm. Euh, suñu borom mooy bind doomu aadama. ci ni ko neexee. Hmm. ak fam ko neexee. Hmm. ku xamoon fam ne da ngay def rek jël. dëgg la mënuñu def plateau nag ba jóg te sargaluñu les femmes. handicapé dëgg la ndax tey booy xool tey boo demee Pikine tey jii fi may wax ak yow les femmes visuelles waaw ñi nga xam ne yàlla dafa téye seen bët tey dañ def journée bu rëy man fa laa nekkoon dëgg la def journée bu rëy journée ba loo xalaat rek am na ca mhm. si seeni liggéey dañuy def transformation ci ay mhm. femmes visuelles mhm. di def ay ay céréales di def lépp loo xam ne rek jigéen daf koy def nekk yor seeni i borom kër nekk seen biir kër di sëy kon ñooñu mënuñu toog ba plateau jeex te sargaluñ leen sargal lee femmes albinos ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla ñoom it kenn demul ñu des ñu ngi def ci euh, malgré leur handicap mais ñu ngi bay seen waar ci lépp loo xam ne développement bu jëmale buy jëmale jigéen kanam la les femmes handicapées moteurs motrices di moyes ñoom it ñu ngi leen di ziar ñoom it ku ci ne rek pàcc bu ci ne type de mm-hmm. handicap bu ci ne mm-hmm. ñu ngi nuyu aussi les lépreux yi nga xam ne ñoom tamit ay femmes lañ mais mm-hmm. malgré seen feebaru ngaana ñoom ñu ngi célébrer seen seen journée ba pare ñu ngi def seeni activité ci selon seen handicap fi mu fi mu fi mu yemale seen seen activité kon ñooñu Linguère dañ ñooñu ay faaris lañ dañ leen war di sargal mm. parce que nag suñu borom <laughs> ñun kenn xamul handicap c'est pas c'est pas physique mais c'est dans la tête mm. xel mooy handicapé mais du cër bu wàññeeku. Mm. du différence de po mm. du leneen xel mooy handicapé tey wax dëgg neex yàlla ñu ngi si seen waar ñu ngi ciy béy seen waar yaa dugg sànq ci lu am solo mooy des fois. Mm-hmm. nga nekk femme handicapé nga dem ci kër ñu xeeb la. Mm-hmm. ka xeeb loolu la am. nit su amee mbalit mbalit la lay jox. la mu am la lay jox de am la lay jox. Mm. taaru ginaar dunk ya la. sunu borom. yow mal xiyaam xeebaate amu fa. armeeru handicapé foo ko gis. amul te bu yowmal xayaamee bañ dekk ba ku ne def sa balaa ñu taxaw benn hôtesse la benn hôtesse la muy lan weex kese lay doon jéggal loolu yàlla xàmmewul handicapé hmm. xàmmewul puude xàmmewul visuel hmm. ñëpp dañuy taxaw hmm. def seeni hôtesse taxaw ñu jugé leen kon euh, am na loo xam ne su ko nit di def yow la yow la concerné yaa yor sa mbalit di ko sànni gis nga fi ngay gisee handicapé di ko rejeté di ko sànni di ko négligé ni tànk ko fa gis aj ko ba ci kaw tatagal ko bëggul sax lu ko laal noonu la àdduna bi tëddee moo tax gis nga des fois ñu jànkonte ay jafe-jafe. Mm. ak ay difficulté mm. dem sax ba bëgg a xaaddi mm. mais boo xalaataatee xam ne euh, gis nga. nul ne peut décider de sa naissance encore moins de sa mm-hmm. mort mais on peut bel et bien décider de ce que l'on de sa vie loolu dafay nekk ci ci ci doomu aadama mm-hmm. nit da ngay am gëm-gëm gis nga man malgré sama dif man man sama man magge amuñu différence amuñu différence déedéet parce que man da c'est au-delà mm-hmm. dama loolu dafa dafa nekk dama dama ko dépassé xel la rek lu gis nga lu femme valide femme bu normal mhm. lu mu mën mhm. femme handicapée mën na lu ko raw mhm. mën na lu ko raw jaara dama lay appuyer xam nga xeebel fi lañ ko fekk te fi lañ koy bàyyi léeg-léeg nga dëkk ak nit di ko xeeb lan moo tax nga xeeb ko te ngay jigéen muy jigéen gënoo ko dara gënoo ko ci judd gënoo ko ci ndey gënoo ko ci baay tufaa mi touché na benn point bu am solo daanaka nga xamante ne mooy système ak yi pourquoi ñu lay xeeb parce que yaa ngi ñu lay xeeb parce que tu es handicap de peau pourquoi ñu lay xeeb parce que da silmaxa te pourtant am na njariñ moo xam ne la nga mën sa waa kër kenn mënu ko gis nga garab ga war a law ba doon pécc law ba di ko gis ba di ko gor dama bëgg nga ñëw ci droit de la femme mm-hmm. parce que itamit sànq ba lay jigéen xam na boppam ci mm-hmm. diggante mag njabootam ak kilifaam ak i way juram mm-hmm. waaye lan mooy droit de la femme ma bëgg système ak yi ah, rima nga dugg ci balaa may euh, balaa may yegg foofu dama ñëw si soxna jaar dara tuuti mhm. parce que li wax gis nga nit dara mën na la bañ a dal sax ñu xeeb la waaw xeebel moom xel la rek comme ni mu ko waxee mhm. gis nga nit nañu xam ne ne ñun ñëpp si yàlla lañ jóge ca fo moom sa moom la ñuy dellu mhm. te ñun ñëpp suuf lañ wallaay wallaay te allah kulli alin dañuy dellu suuf. te kuñ ko wax nga mer ñu ñu wax wax ba dañu dellu suuf. la te gis nga nag doom doom la. yaay mooy jox ku ne. comme ni ma ko waxee sànq yàlla. yàlla ci jigéen. la jaarale ku ne. loo am. xam nga ne lii mooy sa alal. Mhm. parce que man nag sama doom mooy sama alal nag. dëgg ma dara nu mu mënti sama alal. doom res la. mooy sama alal. Mhm. fi ma nekk nii. Mhm. nee naa ñàkkuma dara ndax yàlla may na ma tuut tànk bu may xool mooy sama alal. ñu bàyyi xeebante yi. ci côté bu nekk nag. gis nga di nga matale lépp. sa cër lépp mat nga nekk ki nga war a doon mat fi nga war a mat jàppale sa borom kër nga ñëw ci kër ñu xeeb la njëkkee nag laay waxal. Mm. Mm. man mii ci laa bokk ndax am naa jabaru am naa ay jabaru frère. Mm. waaye man alhamdulilah. sant yàlla ba ñoom yaay laa leen di wax. ndax ñooy sama yaay. dëgg la ndax samay mag yu góor ñooy seen boroom kër. samay mag yu góor samay kilifa lañ. seen jabar mooy sama yaay. Mm-hmm. su soon ma fekkee ak sama yaay yu bopp. Mm-hmm. dañ ma naan demal nga ñibbi fii sa yaay newu fi ñun la jur. te mooy dëgg. xeebu leen benn yoon. Mm-hmm. te ñoom it ñu ma benn yoon ma ma tegal la ci dala mm-hmm. gis nga dañuy wax léegi xeebel mm-hmm. dugg ci way laago yi ak mm-hmm. képp ko xamante ne njàccaar nga kii nga xamante ne mooy xeeb nit kooku mooy handicapé ci xel tegal sa baaraam waaw parce que xeeb nit kooku moom moo am xelam wérul xelam dafa des lu bari te léeg-léeg nekk nit njaay wala rombee dana sollu seet sollu yiw boobu handicapé na bu yàgg ci xel te yóbbu ko ma ni ñu duggaat léegi ci droit de la femme lan mooy droit de la femme dëgg jigéen ban droit la war a am warul tax nag mu jaay doole carrément lu ci nekk rek gis nga lañ naan lu ëpp tuuru dëgg la lu bari rek day gaañ nañu def nànk ba tax na am nañu droit am na fu ñuy taxaw ñëwal foofu waaw loolu moom mënul ñàkk ndax mhm. fi lañ ko fekk te fi lañ ko bàyyi dëgg la xeeb nit xeeb ki ngay xeeb yow amaana sax moom moo la gën wallaay kon loolu war na fee mën a jóg mhm. xeebaate nit handicapé la wala kii silmaxa la wala kii lii la wala kii laa la maanaam dafa rafetul ci gis-gis waxuma laa ci mm-hmm. déggin mm-hmm. yàlla moo la bind bind ko bu mm-hmm. doon ku nekk yaay tànn sa bopp ni ngay mel ah, kon tubaarkàlla bu ma génnee doon may ba yàlla ubbil la buntu wër sax nga am noo mel ah. moom ma la xewal mooy daw toppaat ci sa ginnaaw eh waaye àdduna ñun jigéen ñi dañuy waxtaan ci suñu biir mm. xam ne xel mooy liggéey mm. li nga xamante ne natt ko jotu la bu ko solal sab nawle bul tudd Mamadou bëgg a tuddee kee Maamidou eh, Toufa lan ngay wax ci loolu moom dafay ree rek xol bee sedd tey ndax ñoo ay ay wa ñëwal xam nga ku dul may boo xam moom lu mu am day jël dëgg la mm-hmm. eh, loolu la olof Njaay wax mm-hmm. eh, nañu bàyyi xeebaate des fois sax gis ku dugg ci kër ndeysaan gis naa ko koo xam ne waa ji da ko waroon a takk mm-hmm. mu ne duma ko yaay ji ne ko bul ko takk ndax soo ko takkee yaayam du ma teral boo ko takkee yaayam duma ma teral maam du dégg njaag tey ñun baadoole ñoo gën a am jom sax boroom alal yi ñun baadoole hmm. ñun ñun ngay ñëw fekk suñu kër yi ñun ñu togg ci mbana yakk ci bool hmm. tey ñun baadoole tey ñooy am xew diri juróomi valise hmm. njaagal la lu fenn lu amul fenn jox la teraanga yu amul fenn tey nga yëkkati un million jox ko nit di fa xaar dara dëgg joxu la dërëm nga dem di mer yaa ko teg sa bopp na xeebeen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nit ñi ñu ngi koy dund. Mm-hmm. te comme ni ma ko waxee sànq femme yàq femme la. Mm-hmm. dafa bari te lépp ñun jigéen la. ñun jigéen ñi. Mm-hmm. toujours rek jigéen jigéen mooy defar jigéen ay yàq. lu ñu bëgg mu defawu day defaru. waaye luñ la tey mu yàqu. bu sama sa bopp day yàqu par force. yal ñu yàlla musal ci jéeg bu nekk ci kër di yàq. xeebeel pour lan nga xeeb nit ki pour lan man ku ma xeeb ma yeb la. ah ah, ah dama ni. waaw tegal sa baaraam. kopp yee wute waaye ku xëy da nga góox <laughs> man maa wax loolu. dama ne daa ute waaye ku xëy guux. li ngeen koo xeeb mu yab la. ku ma xeeb ma yab la. barki Serigne Babacar parce que tey la nga am ba mën koo defee ji. Mm-hmm. mais handicapé yi ngay gis macha allah ñoom ñooy dañuy belli mel lu leen neex. Mm-hmm. jong ma bay bëgg a dee. Mm-hmm. am jom teg am jom di liggéey ji te bañuñu ku leen yab. parce que dafa am loo xamante ni xëy na amoon na avant. mais tey bi ñu demee ba comprendre lu baree bari. dañoo xam ne tey lii mooy wàll bi mhm. tey waar bi lii la léeg-léeg mhm. na gis ñu dugg seen ay minibus man am na mhm. ñoo xam ne chaque matin dama daan dajeeg moom ñoom ñuy dem di gaare poste Médina ah léegi dañ def mais xeebeel pour lan lan moo ko fi jar ci ñun jigéen ñi rek lépp ah? jigéen ñi la te lépp jigéen la mhm. jigéen mooy yàq moroomi jigéenam mhm. non dafa doy nag vraiment parce que léegi boo xoolee léegi femme de développement yi fi mu ne nii mhm. dañ fay bari te macha allah ku ci nekk yaa ngi bay sa waa xam nga fi mu ne nii la xale yi jotaal liggéey fighting xool lu ñu avancé xale yee ngi tukki di def leen neex ah di di di xale yee ngi njëkkante am euh, te lépp jigéen ñi la jigéen ñi tey ji damay gis par exemple tey Linguère yore otom donc naa fexe Linguère nekk référence ci man ma fighting xool ni lingeer def ba am li mu am tey ma fexe ñafe loolu mais loolu lu baax la référence la mm-hmm. royukaay la mm-hmm. na ñu fexe jéem a xool ci roy di di roy ci lu baax moo gën ñuy def yoo xamante ni mm-hmm. ni c'est trop terre à terre di defante léegi dafa léegi dafa xewi TikTok la ñuy toog di defante mbaa ñu dugg ci ci WhatsApp bi ay xoola samay statut ku ci toog ku ci toog ku ci togg benn ginaar boo xam ne daf la sax nga est du àdduna wërngal këpp gis ko benn ginaar mu rëcc la mu rëcc la da lay rëcc ndax mënoo ko Ah. ndax munoo ko di. Hmm. sa téléphone ngay jël rek xool nuy rosé. waaw ginaar gi noo koy roofee loo koy hmm. booleel. ñàkk ma may balaa balaa rosé roof. soo paree balaa rosé roof. si hmm. net nga koy xoolee. lépp ci net ba koy xoolee. soo paree benn <laughs> eh. ginaar. ca raxas ga daanaka atu yàlla nga koy def benn yoon boobu da ngay naan la ah, nii. déggoo ma dem naa tuddee jéegu teen tey ah, ah. merci jéegu teen jigéen ngi wane boppam ñoo jéegu teen tey daal tey bis yi jigéen ñee ay hmm. ba tax na nee nañu jigéen mooy àdduna dama koy répéter la hmm. répétition est souvent euh, pédagogique hmm. ba tax na set dafa baax ci àdduna nee ñu set ak jafe ak a métti nga set rek set ci sa bopp am na solo set ci sa biir kër ba oñeeku set ci sa biir nekk set ci sa waañ yaa ko wax léegi nga ne ginnaaw ñëwal ca raxas <laughs> ma ne ca raxas ba. ca raxas ma la <laughs> Eh, man balaa may lekk ginaar hmm? danaa xool raxas ba ba pare waaw waaw mm-hmm. bëgg naa jigéen ju set gis nga dañ koy tàmbali xale jigéen dañu bëgg a ginaar bëgg a ginaar mm-hmm. waaye dañuy toog duñu raxas gis nga ginaar mm-hmm. dañ naan jigéen daa bari ruq noonu la ginaar bari ruq mu ngi noonu à propos bari ruq maam Diarra damay continuer toujours ñu ngi toujours ci le 8 mars ñuy màggal journée de la femme Tufa wax nga lu am solo set dafa baax cib ñam ndax suñu càmmiñ yi léeg ñu gedd benn ñam plat ba tax ñu bañ ko ca toggin ba la ca liggéey ba la léeg-léeg sa borom kër wala sa rakku jëkkër ne man du ma lekk tel plat parce que gis na ci kër loo xamante ne moo tax ñam woo mu ba ko abadan daay man du ko lekk te amaana muy togg bu riis bu appétissant boo xamante ne boo tawatee mën nga ci xéwalu waaye man dama ne maam jaara droit de la femme lii soxna si wax léegi nekk ci tiktok yi di jii di xool ni ñuy toggee ah, ci facebook bi ñu maa ngi jéggalu bu baax a baax parce que lépp rek ci ñun jigéen ñi la ñun ñoo koy def di roy ba daq li nga xamante ne nasaraan si ñoom ñoo koy def yow jànguloo togg ci sa kër ndey mm. jànguloo liggéey ci sa kër ndey nga ne man dama bëgg a jëkkër dama bëgg a dem sëyi te ngay jigéen ah, su ëllëgee ñu war mën a a mën a taxaw kaaje la naan jigéen jigéen jigéen jigéen xam na boppam dañu wane suñu bopp la win mars amaan na ñun ñi toog fii ñun ñëpp ku ci nekk faaris nga ci sa bopp ndax ku mën a liggéey nga mm. ku xam li ngay def nga ku mm. respecté doomu aadama nga waaye jigéen boo xam ne jàngul togg jàngul yàq ba pare nag sa jëkkër bu jógee génn dem reeri nga ne man am naa may togg togg mu lekk ko lu tax ndax moo ma takk la ko la tax mu jéggaani ba dem mu yow yaa ko def mm-hmm. ay ca ndax mën nga dugg foofu xam nga ndono dafa wóor ndax lu waay doon mu dëgër ah, te doom ndeyam da caa dëgër ndax bu koy nàmpal da koy xool ah? Ah? doom mm. ndey ja da caa dëgër lool te dañ naan doom bu màggee dëbb dëbbinu ndeyam eh, waay ñëw doom mm. su màggee dëbb dëbbinu ndeyam doom ju jigéen jàngaaniwul nday jaay royukaayam gis nga yooyu olof di lépp mm. dafa am solo parce que doom bu jigéen la mu jàngi lamu mu la mu tari rek ca ndeyam la ko jàngi mm-hmm. gis nga boo boo mënulee togg mm. sa yaay échec na ci jigéen mm. jigéen bu la neexee bul mën dara bul mën fóot bul mën raxas loolu de mais togg su ko jigéen mënul ndayam échec na mm-hmm. te gis nga góor dafa am lu am solo loo xam ne soo ko fonkalee mm-hmm. foo jaar dalay dalay teg ci kaw. Mhm. muy biiram ak kàddu. Mhm. dëgg la ñaar yi góor daf ko fonk. Mhm. biir ak kàddu. moo tax loo ciy def rek dafa war a set gis nga set. kenn du ko jàngal kenn. set da nga koy judduwaale. di ko di ko di ko di ko màggaale ñu la ciy yar di la ci nàmpatal mais set doo xëy rek jàng ko. mu ngi noonu set day bokk ci yow. te gis nga li ngeen. nit. day utal boppam way mm, ci biir kër ga muy sëy waaye way wu rafet mm. soo gisee nit xew la ñu naan na biir na biir biir lu waaye defoon na ko dégg ah. su ko jéeg déggee fi itam di maas na xoolaat boppam mm. defoon na ko dégg su dee lu baax na ko dégg su dee lu na ko dégg su ko jéeg déggee fit wa di na xoolaat boppam jigéen dafa war a làmboo ay xar baax ay xar baax la jigéen war di làmboo jigéen dafa war a yaat tey yaatal jigéen dafa war a fonk ñëpp boo sëy see si kër dañoo tax ñaan jéegu puso parce que puso xam nañ ne fu mu jaar hmm. Hmm. moom day normal kon jigéen dafa war a nekk jéegu puso hmm. bañ a wutal boppam ay noon jigéen dafa war a respecter lépp loo xam ne entourage am la entourage u jëkkëram parce que sëy nekkul yow ak sa borom kër kese sëy c'est tout la famille te ki nga nar a dundal jusqu'à la mort kooku da ngaa war a defante lu rafet sa mm. diggante moom mm. ak sa diggante ay mbokkam ndax ëllëg boo fi jógee waay war a fe ndax jigéen bu ci ne mm. ñaan nga yàlla sa borom kër suul la ñaanal walaay walaay dëgg la maam Diarra jërëjëf kaddu yi am na solo ndax lépp rek ci biir jigéen waaye nag dañuy tef nagas ni ko foofu xam naa waxtu wi li ci des bareetul waaye du ma dem te gërëmuma li nga xamante ne mooy suñu yaay fii ci kër gi macha allah mi ngi fi ak ñun 24 heures sur 24 di ñu superviser ndax tamit jigéen la soxna la yaay la muy madame Sané il est temps tey ci suñu biir ni ñu amee marraine moom itamit marraine la ci ñun ndax ndey la ci ñun saa su ne mi ngi taxaw di ñuy di ñu di ñu di ñu jubbanti lu ci war mu def lu ci warul mu wax ndax lépp day defaraat rek ndax lépp ci biir kër gi la nee nañu kër bu baaxee yaaye ko baaxal baaw baab la ba tax na moom itamit dañ koy rendre hommage bu baax a baax di ko wax rek très bonne fête waaye di nuyu ki nga xamante ne mooy Cheikh Bara automobile waaye tamit damay jéggalu rek ki nga xamante ne ñoom it dañuy ñaanal ndax suñu ay càmmiñ lañu dañoo gërëm bu baax a baax ci émission bi ne Rewmi TV mooy seen télé la ñuy seetaan di nuyu Cheikh Bara Sylla suñu càmmiñ jooju pëccoo ñu ngi koy ziar sa mot de la fin nga tàggatoog askan wi ndax tamit mënuñu jël lépp mhm. euh, di wax nag euh, wax ji euh, lépp rafet na mhm. waaye tamit suñuy suñuy góor suñuy càmmiñ nañ ñu nañ ñu nañ ñu jéggal mhm. nañ ñu nañ ñu comprendre nañ ñu jàppale de gauche à droite parce que amuñ ñu dul ñeent gis nga même bu fekkee ñu ñooy magasin yi li ma waxoon kiroo rek ne sa kii sama doom la ñu ne ma fu mu si ban digg la jóge ah ah noonu la dañ ma ko xee maa ngi jéggalu waaye nag ñoom lépp tamit ñoom la. Mm. ndax bu ku fi jóg liggéey. ñoo la bàyyi. Mm. ku fi ku képp koo xam. <laughs> ah Mame Diarra wax fournisseur <laughs> mm. di di jaajëfal tamit euh, ki nga xamante ne mooy madame Sané. Mm-hmm. ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax di jaa di jaajëfal tamit jigéen ñi ne ci kër gi. démb rek nee naa moom siisu maa ne xam naa dinañ siisu waaye nag fii moom. jàmbaare jigéen lañ. ñoo fi ne de ñoo fi ne. Rewmi TV de <laughs> Aïcha Aïcha di kontaan bu baax ci émission bi lu fi jub ñu sante ko yàlla sunu mm. borom lu fi dëng tamit ñu xam ne ñun la mm. di ko gërëm sunu yaay saane bala ma ñaancoo ah. tubaarkàlla ceeb bi xonq na niin na <laughs> lépp baax na sant nañ bu baax a baax di gërëm sama waa ji moom mu nekkoon ci technique bi ak mboolem kum ci àndal di ziar sama yaay Toufa waaye itam ki nga xam ne moo ma génnee fii dédd ah. madame Ndiaye mm. Seydou Ibrahima Ndiaye maa ngi koy ndokkeel moom itam bu baax a baax mm-hmm. wiis njaga moo jaar ci robb bi ma tax na tey fu ma romb gars yi ne wiiw en tout cas macha allah di gërëm ah, ay waxam la indi tey jàmm yaa ay ca Toufa ngay tàggatoo askan wi waxtu wi jeex na voilà comme ni ma koy defee saa su ne rek amoon mbégte ak contentement dal ci émission bu mag bi yittee askan wi moom rek mm. ñu ñor di mm. comme ni ma koy waxee madame Sané moom sama yaayu bopp la ah, tubarkàlla moom xam na ndeysaan wallaay ndeysaan di ko ndokkeel yàlla nga ñu yàgg gunge ay at yu bari bari bari bari incha allahu rabi alors du ma dem te fa lu ma Gambien Gambien marché Tilène donc moom moo ma jox basin bii ma sol mhm. tey mhm. waaye Uroy ak Khady Ndione ah euh, Maribel Couture ñoom ñoo ma ñawal mhm. donc maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax Glamé Chic by Dija Afia kontaan naa ci yéen ca Médina ba tey 19 angle 2 bus maa ngi leen di béggee bu baax a baax a baax Mhm. ki nga xam ne moom moo di ay da Bana Touré borom États-Unis d'Amérique ci bijoux yi kontaan naa ci yéen Khady Paye Ndeye Jatou sama yaay nag maa ngi koy souhaiter une très bonne fête. à toutes les ba ñu lay teral incha allahu rabbi rendez léegi léegi ci rajo bi lay doon. macha allah 19h 20 danañ la topp incha allah ba mu neex ndax fii la lépp xewee. toppale ma bu ko defee rek yaakaar naa ne ba commercial di ñaan loolu ndax ma yaakaar ne tey nag fi tout est permis li a ngi noonu ci lu taalu lu dis li nga xamante ne mooy Ndiaye Diatta Thomas te si Cabridis moo def lii rek macha allah bu ko defee damay am contentement ak mbégte di la wax jaajëf waaye tamit bi riche na yittee population bi jubluwuñ ci lu dul defar rek lépp lu dëng dañu jéggalu te xam ni du suñu coobare jóguñu lu dul wax lu rafet ak lu jub ci askan wi may jaajëfal ñi ma àndaloon tey ci plateau bi yaakaar naa ni mat na te journée de la femme la ñuy wax yal nañu yàlla may dégg ak topp ba soxna yépp lépp lu ñuy yëkkati rek mu àndak ak njub ndax jigéen ñee fi ne jigéen ñee yor kër yi góor yi ne leen waaw su ko defee rek dañ leen di jox dig daje incha allah suba ak jàmm ma àndaat ak yéen même heure ci Rewmi TV télé askan wi ak Linguère fi amani nañ leen yónni te di leen sargal nañ leen yónni te di leen sargal yéen jigéen ñi nañ leen yónni te di leen